damay ànd ak yéen ñu dem xool ko après ñu ñëwaat. <laughs> ñëw leen toogaañ. Eh, eh, eh, <laughs> tey tey ceebu jën la ñuy togg. waaw ceebu jën la ñuy togg. ceebu jën bu am suul ak bëgëj. ceeb waay bàyyi rek ceebu jën bu am suul ak bëgëj la ñuy togg. daa ilaa ilaa la jéeg bi. ah. wal ma papa waay ngir yàlla. looy togg de. xoolal bàyyi leen ma de dégg looy togg. yow. <laughs> yow yow mënoo wax a ba doom wax looy togg tey. looy togg. looy togg fii. ay waay ay nee mu ñëw wax ak sama waañ bi wax wax ko mu ñëw wax ak ñi. tey nag dañoo ñëw fekk ko ci waañ bi. tey moom vraiment gis nga ko tey na nii ba waaja a sóor. nee na ma ceebu jën lay toog ba am suul ak mi ngi baaral dañuy xaarañ sax tey ñun. ci loone ñun suñu a ñëpp xaj nañ ci bàyyi leen ma waaye ngir yàlla nag xoolal Medoune ngir yàlla dimbal leen ma jëmmi Seydina Mohamed defal ndànk dama leen ko ñaan ngir yàlla jëmmi Seydina Mohamed waaw waaw defal ndànk dama leen ko ñaan dimbal leen ma rek waaw génn sama añ tuddee xoolal defal ndànk rek ngir yàlla waaw seppi loolu da ngay seppi wala seppiwu ma eh génn leen fi damay toog Ndeye ngi seppi Ndeye Gueye taxawal fii ci wañu wi yow Sepi. ngi seppi tey seppeeguma da ngay togg agn tiebu jën bu am suul ak bëgëj nga ma tiebu jën bu wex la ma wax tiebu ah, wex la tay yow eh naka wañu ay way dimbal len ma gis len naka wañu wa ma ngi sante yalla bax bax tay nga xey mom nonu sax nga yag di def ba nga sëy sëy ba legi mais tay mom da ce nekk bis boo xam ne. see c'est extraordinaire. nga xëy di def ceebu jën bu weex. waaw man damay togg rek man damay sëy yàlla tax bàyyi leen ma ngir yàlla damay xoolal dama dee ma damay surxal ci defe naa ne gis ngeen li nga xam ne moom laa leen doon pour man lii nii ñi nga xam ne ñoom ñoo yor yenn site internet yi wala ñoom ñoo yor yenn télévision yi ñoom ñoo war a xool ñi ñuy jox seen ay caméra ak ñi ñu jox seen ay micro quoi parce que kii baadoola pire pire pire la ngeen baal ma ci terme bi yow naka ngay demee si nit fekk ko foo xam ne amaana moom bëggul nga wone foofu nga ñëw ah di dof dof lu comme ça mu ngi naa la dimbali ma ngir yàlla arrêté lu nangam nangam nga mën ne ku nekkul ci live bi. am na yoo xam ne dafa rafetul dafa ñaaw kii nii mu ngi sëy dëgg la fi mu nekk peut-être bu sañoon ngeen fekk ko fu gën a rafet foofu wala fu gën a présentable foofu caméra bi ngeen koy caméra mu déranger wu ci mais mais nekk leen ay nit naka ngay duggee si kër jàmbur dem ba fekk ko si biir waañam foo xam ne c'est privé la comme ça ngeen dugg foofu di ko di ko ruube ba nga xam ne da ngay xool nday géey sax sa yaram day daw koi mais ñi koy def lii ñoom yëgaluñ ko seen yaram kii soo ko xoolee xam ne moom wul yor micro kii warul yor micro quoi kii warul dem di interroger kenn wala muy def ay interview parce que kii jàngul métier bi maîtriser wul li muy def parce que bu ko xamoon dina xam ne kii lim koy def neexu ko te droit de l'image dafa am nit ki li nga koy def bu ko neexu waroo ko koo def waro jël image boo xam ne nit ki amoo ci autorisation buggul li ngay def te yow bu la ko ndey waxee ak bu la xam nga ne li ngay def bugg ko arrêté leen seen yii quoi dama ko gis mu metti ma trop ma ne il faut lii ma génn wax ci gars yi kontaan naa ci yéen nag di leen wax ne vaar yaa ngi ñëw de yor naa ay vaar yu doy waar nag jaa ngeen jëf sama gaay yi. xaaral xaaral xaaral xaaral ma ñëw xaaral